Nous avons une vision une politique bu mettre en place vision et la politique Nous ñu may C'est te statistique Nous ko sommes troisième partie du Sénégal Ce nga vous ne nous ne Nous avons ko wax fenn ndax ñu ngi koy des rek di ko a PDS gagné trois départements UCS gagné deux départements New York fi presque 18 mairies mais dañu le micro à sabar de. wax ndax ñoñu dañ ñoo wolu dénk ñu seen cadeau ñu fassiyene sur le terrain di liguey 28 juillet 2012 le UCS am récépissé kenn dégguñu ci caaxaan kenn dégguñu ci fo ndax nak yalla daf ñoo sutural ba nga xamné ne bi moy leader bi personnes de développement ay experts ñu jël expertise donté ci opposition bi di wàcc di ko bokk ak askan bi fexe ba askan bi gis ci seen bopp fexe ba askan bi moom seen bopp